Sahel Network Entertainment Sahel Network TV Sahel Network euh, raba raba ak everything mbokk yi dellusiwaat nañ fi waaye euh, bala ñuy soli rek ah tey moom dañuy rax tuuti anglais rek ah, let's take our viewers euh, comments and see what they're having for us. I, Antiada, can you read one of the, those comments, please? Uh, well, one viewer was saying that the period we have also noticed the large number of security personnel that are standing on the road. Mm -hmm. Mostly they check the vehicles and also they are helping drivers to be careful of their speed on mm -hmm. the mm-hmm. road mm -hmm. because as drivers, wherever you see a police or army man, you will respect yourself and drive more carefully. At least this will help reduce the rate of accident we have been complaining about the show. Ah, so that is one of our viewers Eh, comment eh, day na waar gars yi. mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne driver yi bala ñu mun a nite. Mhm. foog ñu gis koo xam ne sol na si bon. non non ma wax si mbong maanaam gis na takkader gis na gis na takkader benn muy police wala muy soldat wala dëgg nag wax na dëgg parce que soo ko seetloo tey dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg euh, bari na driver yoo xam ne bu ñu gisee borom uniforme rek dañ dee yaru dañoo yaru xëcca belta xam nga ma expliqué la nii soo beltul xëy beltul yow a nga ma bëgg a dugal problème xam nga wàññi xam nga ngir police bi xay police yi dañ mën a lekk nii na euh, anyway daal man daal jaaxal na ma daal muy loolu driver tamit euh, comme que léegi gis nañ police bi ngi tax saaroo si biir réew mi. Mhm. soo ñoom tamit ñu ngi tax saaroo. <laughs> Aïcha dafa xiif. ñu ngi tax saaroo Ngouwal Ngouwal bàyyi loolu. <laughs> baax na. Eh, eh, man vivace laa waxaa sax parce que encore waaye moom mu ngi fi di cokaasaat rek. Mm. Euh, comme que léegi ñu ne driver yi driver yi léegi comme police yi nii tasaaroo neen si dikka bi bugg a dimbali sécurité. Mm-hmm. soo léegi ñoom tamit dinañ wàññi comme accident yi ni mu faraloon di bëri. Mm-hmm. soo léegi loolu yëpp dafa wàññeeku te soo gisee tamit driver ñu dee daw speed ak xale yi nga xam ne amuñ lan mm-hmm. te ñëw seen police c'est ça suñu driver wàcca yoon bi soo loolu yëpp tamit dafay yokk sécurité si réew mi di jaajëfal police yi rek. waaw xam nga xam nga euh, dëgg la tey ñi nga xam ne bari nañ ñoo xam ne amuñ laysin seen kër yi lañ euh, déedéet maanaam am nañ laysin sax waaye demuñ euh, driving test wala jëluñ mm-hmm. examen yi drivan xaw ma drivan la xaw ma xayam pour ñu mun a xam ndax kii mun na moto wala déedéet mm-hmm. waaye tey su fekkee ne police yi lii ñu def nii wax dëgg ne man dama xam ne dañ ko yéex a def ah, waaw comme ah, ba tey dañ dee gis ne sax doone ñëpp a sax ñëpp a dem driving school sax mm-hmm. comme tey yow da ngaa dikkaane ci kër bi mu mun moto nga dem si moom mu waxtaan moom ne ko dama bëgg a mun moto mhm. yow ku ko amul yenn matukaay yoo xam ne mun a mhm. nga bi rek mun mhm. lii rek yow moom yow ak gudd yow yaa si trafic bi di daw nu mu la neexee waaye sant yàlla ñu ngi am ñoo xam ne ñu ngi pare pour dimbale nit euh, ñu mel ni comme traffic police yi nga xamante ne ñu ngi mm-hmm. tasaaroo si yoon bi mm-hmm. mu doon loo xamante ne lu ama am solo la si askan bi because dina wàññi accident bi si réew mi man mm-hmm. noonu laa ko gisee man mais dëgg la mun naa wàññi accident bi sax waaye tamit dangaa gis ne euh, driver yi nga xam ne surtout si jamono ji nga xam ne ci lañ nekk nii driver yi nga xam ne a dimbali parce que man xuloo que dama xam nga at the end euh, su ma la waxee ne euh, booy bi ma amal driver bi ma amal problème fan yi passé nii démb daf ma gis bi maa liggéey si. Hmm. mu dem ba taxaw xàmmeewu ma mu dem ba taxaw dama teg suma tànk si si si si si gële gële gi rek mu xàmmee ma mu ne ma non sorry sorry oncle baalal ma baalal ma wàccal. Ah! because of pour moom man léegi ennemi la xam nga loolu noonu la maa xoolee te xamul ne man maa ngi sàmm réew mi di ko mhm. sàmmaale moom ci boppam parce que tey jii jàngoro bi ah euh, bu ñu waxoon ne am na ko ko am ci garage boobu noonu soo moytuwul driver yëpp dinañ leen yóbbu euh, quarante

Euh, moo tax daal xamee naa moto bi bu baax a baax a baax a baax a baax man tamit. beneen yoon bu moto ñaakoon sax bu taxawee du ma ci waaye loolu bu ko topp parce que su ma ci buggee dugg mu daa xam. la luy problème bi yow yaa ngi ko doon wax on safety waaw yaa ngi ko doon dimbale waaye moom mu ngi jàppee ennemi comme na ko waxee waaye façon yooyu bu leen toppa parce que ëllëg dineen ku ne ah man de kii lu ma doon wax surtout bés bu la police jàppee xam nga xam nga li wax ji mooy maanaam damay faral di wax ne gis nga doomi réew bu baax bu laajte lan la mosuma réew defal laajte man lan laa defal lu mu tuuti tuuti loolu ak lu mu tuuti tuuti bul ko xeeb pour man loolu mm-hmm. ah, mbokk yi daal mu ngi noonu waaye di leen fàttale ne ndeysaan Bandiawaly Mbaye la anti Aïcha ak anti Aada ñu jox leen dig daje ba beneen jëmi jamono. driver yi police yi ngàcce ngaalaama